waaw tey effectivement dañu ñëwoon euh, wuy si convocation bi ñu doyen des juges joxoon pour waxtaan ak ñun ci wàllu petro muy mbir moo xam ne yitteel na askanu Sénégal bi yëpp yaakaar naa ne sax ñu nekkul Sénégal tey xeex ngir yorin wu sell setal yorin wi waaye nag xam naa ne par rapport à la question que tu m'as posée mën a comprendre ne fi enquête bi toll duñ mën a dugg ci ay détails ndax ñun ñëpp ay citoyens sénégal lañ yoo xam ni dañu war a respecter de la loi te xam nga ni instruction dafa am cachet bu ci am solo bu wax secret l'instruction té dañ ñukoy fatali sa soné ba nga xam duñu mëna wax ci liñ waxtane ci biir wayé nak quand même am ñaar mbir yo xamné ne ñor na ma te ko wax bi ci njëkk mooy loolu xaaruñu fi pour waxo ko nañ ko wax fuñu mësa jaar muy dig ba fi ñu tollu que ni bu fekké ni effectivement enquête bi ni ubi li taxaw jog santane ak ubi ak ci liggéey moy dëgg gi leer nañ japp na ni ben xibar jarta sàggane rawatina nag xibaar boo xam ni wala xibaar yoo xam ne mën nañ ko amee ci ay kilifa yoo xam ne bokk nañ ci ñu njëkk a yëkkati mbir mi mbaa ñu xam ci lu bëree bëri bokk na ci ñooñu président de la république Abdoulaye Wade nga xam ni ba ngeen ko fàttalikoo mooy njëkk a indi mbir mi sur la place publique bokk nañ ci aussi ministre Karim Wade nga xam ne yekkoon na ministre bu yore woon secteur énergie jamono yi affaire bi signature bi di am bokk na ci également Nafi Ngom Keïta nga xam dafa am chance am ci double occupation bi ci njëkk mooy bi président Macky Sall di sant waa IGE pour ñu gëstu affaire Petro-Tim mooy bi ñu soog a ñëw au ci boobu jamono dafa nga koy te bokkoon na ci ñu jiite IGE. yàlla def aussi mu jóge fa ba ñu koy fal présidente OFNAC Alliance Sauveur Sénégal dugal euh, euh, dénonciation dugal plainte bi moom mu enquête. biir réew ak bitim réew en tant que président OFNAC jàpp ko tamit déglu ko doon na am ay xibaar yu am solo yu mën a verser ci dossier bi jàpp nañ également ku ci mel ni baaba ay dara nga xam ni bind na ci wax ci lu bari xam ci lu bari ba aussi di ab patriote sénégalais ñoo ñëpp am yitte am ay jéego yu far ngir mbir mi leer te ma xam ci ñoom seen disponibilité boo xam ne su ñu woowee déglu leen ñu wax lañ ca xam foog naa ne bu fekkee effectivement dañoo bëgg mbir yi leer rek benn xibaar jarul xeeb rawatina xibaar yoo xam nag mën nañ koo amee ci nit ñu mel ni ñooñu benn bi ci bëgg a leeral aussi précision mooy. ci tuuma yi daf ci am tuuma boo xam daf ci am solo waaye ki ko génnee ma bëgg d'abord préciser que ñi lépp lu ñu waxoon ci mbir mi commencement ba fin tey lañ ko gën a waxaat tey lañ ko gën dëggal luñ ci waxoon jamonoy plainte bi luñ ci waxoon ba ñu déglu OFNAC luñ ci waxoon biñ ñëwee ak enquête dig bi tey lañ ko gën a dëggal ci kanamu doyen des juges. lépp lu ñu waxoon ci Aliou Sall ci mbir pétrole bi commencement ba fin dindi ci virgule la ñu waxoon ba ñu dem OFNAC la ñu waxoon ci débat yi ñu def ci télé rajo yi la ñu waxoon bañ demee dikk tey lañ ko gën a waxaat fi ñu nekk dañ ko dëggal loolu ñun duñ ci mën a wax mais su ngeen gisee gëstuwaat fi ñu daay xam ngeen tuba yëpp xam nañ ko tout le monde xam nañ ko ñëpp xam nañ ko bokk na ci Aliou lan lay def ci wàllu pétrole bi parce que mbustu ko ci xam ci moom benn xam-xam te jàpp nañ ne fekk aussi président Macky Sall dafa falu daat ni kat mbir yi leerul nañ ko gëstuwaat sant ko IGE laata IGE di indi rapport am mu gàntuwaat signé ko ci diggante bi xel dafay téye te li ñu gis ci changement bu fi am mooy rek rakkam moo ne ci diggante bi te jàpp nañ ni Franck Timis bu doon Aliou Sall mooy dugg ci mbir mi du mus a am licence yooyu. ma de précision que ni rek am na benn tuuma boo xam ne nag mooy li ñuy wax affaire wu xaalis bi jaar ci compte Agritrans te ñu mu jugoon ci BP jaar ci Franck Timis war jëm ci Aliou Sall jaar Agritrans loolee xibaar boobu ki ñu ko indil ñun mooy Mayni Jones daf ko indiwaat yokk ko lañ xamoon ci mbir mi dèjà te Mayni Jones nag nekkul planète Neptune. nekul Jupiter nekul Mars mi ngi planète Terre ñu ngi nek diggante Angleterre ak nigeria gi japp na suñ ko wowe mu wuy si suñ ko woowee su ko mënta woo tamit suñ fa yone mu déggu leen ñu wax wax lam ca xam ci mbir mi encore une fois tay lañu gëna paré té japp nañ ni au prix de notre de l'ultime sacrifice lepp luñu laaj dañ ko def pour coopérer pour que mbirum Petro-Tim bi leer nañ aujourd'hui plus que jamais nous continuons à réclamer la publication du rapport de l'enquête menée par Nafingom Keïta nous continuons à réclamer euh, euh, euh, l'audition de certains témoins, parmi lesquels nous sommes Nous continuons à réclamer vérité et justice sur cette affaire pétrolière. Et japonais, vous passer ça. Nous avons profiter de l'occasion pour que maintenant, l'affaire pétrole, dans la mesure où, dans la nouvelle constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. licence c'est que koy avons waratu le président nous dafa war a assemblée nationale ndax peuple